des peuples doon CEDEAO boo xamee ne mooy bi ñu bëgg bañ a doon CEDEAO boo xamee ne dañ naan ñi ko jiite lañoo féetee France wala dañ leen di yebal France wax suñu wàllu monnaie waa léegi bu ñu defaraatee CEDEAO boobu ñett ñi génnoon nu ñuy def dañuy dellu soit mais autant nga bañ a génn ñu toog waxtaanee ko defaraat ko suñu biir ba noppi doog def leneen lu ñuy war a def. Mm-hmm. gis nga euh, dafa am à part CEDEAO mu am ay euh, yeneen i. Euh, gox yoo xamee ni ci biir Afrique ku ci nekk Afrique australe taxawal seen mbir ñii di waa semag ak ñeneen ak ñeneen ci yeneen i gox yi taxawal seen mbir Maghreb ci boppam di jéem a bëgg dugg biir CEDEAO Maroc dafa bëgg dugg bëgg a dugg biir CEDEAO parce que bokku ci woon mais Maroc mu ngay xëccoo pour dugg ci biir CEDEAO yeneen i réew yi ngay xamee ne ñu ñoo nekk ci Afrique bi bëgg dugg biir CEDEAO ñu bëgg prôné benn coopération sud-sud ñetti réew yooyu xamee ni yow déjà yaa ngi am ay problème sur le plan sécuritaire kan ma lay jàppale bu buñ ko xalaatee ci ay Wagner ak Russie de xam ñu la mën a jàppale CEDEAO seen biir wala Afrique ci seen biir lan moo tax ñuy woo Tchad mm-hmm. ay militaire u Tchad ci yenn théâtre d'opération en Afrique pour xeex terrorisme parce que am na déggoo bu mu am ak yeneen ni réew yu ñu bokk lan moo tax Nigéria tey ñu koy jàppale muy am ay échange parce que am na terrorisme bu fa am am na ay jafe-jafe yu fa am waaye am na am nañ pétrole am nañ yeneen ak yeneen te ci ñu ngi ci biir CEDEAO yenn ci ay institution CEDEAO ñu ngi ci biir Nigéria parlement CEDEAO seen siège a ngi euh, euh, Nigéria euh, yenn ci ki ñu ngi CEDEAO ñu ngi ñu ngi foofu mais dëkk yooyu génn ba léegi seen monnaie lan la monnaie la boo xam ne dañ ko seq ak CEDEAO ak ñi des ci le président sur le plan diplomatique dafa am rôle bu mu war a jouer panafricanisme moom ñooñu di wax naan ni warul woon dem fii warul woon dem fii au contraire c'est son rôle en tant que président d'un pays buy mel ni Sénégal doon réew bu nekk en avance par rapport ak yeneen réew yi yoon la ci moom mu dem ci yooyu les réew pour ne leen li ngeen doon wax teg leen ko ci suuf ñëw ngeen ñëw leen ñu bokk liggéeyandoo pour CEDEAO am doole sur le plan financier économique donc ak sur le plan militaire parce que on a des des défis ak sur tous les autres plans yoo xamee ni euh, c'est le rôle du Sénégal d'être en avant-garde mhm. beneen point bi moom mooy également point bu mujj bi monsieur Faye mi ngi soxal lu jëm ci seen parti boobu du PDS